alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu asalaamaaleykum mbokki internautes yi jamono ji ñu wax ak yéen euh, ñu ngi fii nag ci port bu Kaolack di salumi. nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay taalibe jógee ci île du Saloum yi euh, présentement nag yéen a ngi gis gaal yi noonu ñu ñu def moom mooy euh, dañuy ànd ak ki nga xamante ni moom réew mum demoon réew mu lu mat 2000 wala 3000 personnes djégé won jaar ci ndox mi dem di len fekk si danañ len tatagal kon tay ñun buñ ay at a ngi nii yaakaar naa ah, ay at a ngi nii bañ yoree chambre de commerce ba légui ñu diko def lolu nak lim ñuy jox exemple moy liggéeyu alaaji Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass bàyyi ndax fexe ba nga xam ne nii doomu aadama yi yaatiina min kulli fajjin amiqin alquran ba mu koy wax mooy fu sori mooy mooy danañ ñëw ci fu sori nee na li yashhadu manaafi'a lahum mooy ñu am fa njariñ ndax wër na ma ne ñoom danañ àndaale ay marchandises danañ fi jënd demaat kon tey jii dafa war a nekk loo xam ne nii maanaam euh, gouvernement bi jàpp na ci capitaine port ba ngi nii taxaw euh, jàpp nañ ci baliser leen waaye ñun dañoo yaakaar ne li ñuy toppatoo transport ci Sénégal mooy transport euh, passager terrestre nga xam ne ni état day investir ci autoroute investir ci ay policiers yu fay taxaw suñu yàlla defalee autoroute ndox war nañ ci gën a investir pour fexe ñi nekk Gambie sax di déplacé wu di ñëwee nii ñi nekk Dakar di déplacé wu di ñëwee nii day nekk échelle économie bu am doole ah, day nekk tamit loo xam ne nii moo ëpp sécurité incha allah ci ci ci ni ma gisee. kon nag ñëw bi ñu fi ñëw fi tey dañ fi ñëw ci turu opérateur économique yëpp ak turu Kaolack gi yëpp ah, masawu leen ndax ku àgg si sept fii xamal ne ma nga jógee deux heures de matin fa mu nekk te nekk ci ndox loolu doo mën a nelaw. do meuna def dara kon nak euh, agsi agsi leen euh, encouragé ba nga xamni ni nii euh, at mu ne seni i sawara ñew ak seni mbokk tamit seen xel dal. président ngeen teeru ci gan yi jamono jo xamne mbass dafa am ci dëkk bi yan ngeen jël pour ko gis ci walu nañ ni préventif seen masque ak niñ leen di joxe lek di nañ ci tek seen ba ndax xamna ne ma sha allah yalla may na leen euh ngeen di tassare lepp ci lu baax waye bu ngeen fi gisone lu yées tamit da ngeen ko wax pour que ëllëg ñun ñu rectifier ko kon nak euh, euh mi ngi non dal président luy euh, poids économique ak Gamou Baye Niass fii ci euh, diwan bi ak. lan la ñu war a def pour cité religieuse bi doon une cité boo xamante ni voilà day doon une cité économique beaucoup plus attirante. waaw xam nga man damay wax toujours rek ci Baye ak ci euh, maam Khalifa mu mag mi <laughs> li ñu incarné fii ci Kaolack dafa daf daf ñu motiver ñun motiver ci Zahir Zahir gi lay laay wax. Euh, zahir ji laa laa laay nga xam ne nii loo wax mu teg mu teg mu teg ci la fexe ba yow say taalibe noo xam ban gox lañ bëgg ndax tey boo nee mis muslim julit wala nga ne wahabit yi da nga naan monde arabe la ëppe soo nee bàyyi nag doo xam Sénégal la ëppe doo xam Nigéria la ëpp doo xam Soudan la ëppee doo xam euh, doo xam mu ëppee daal loolu mooy wane ne lan la mu doon wax ne maa ngi dox sama tànk bi di nasra diine pour tasaare diine ak am ngërëmul yàlla yàlla mi ngi ko koy fay ndax fayum yàlla moom du doomu aadama ma ngi ko koy fay ci àjjana waaye mi mi ngi ko koy fay pour ak njabootam gi nekk fii xam nañ ne opérateur économique gi nekk fii ah gis nañ ko muy gàmm yëpp ak màggal yëpp bu ci amul rek danga gis ne dana laal économie te xam nga réew léeg-léeg consommation dañuy jàpp ne naan dañuy yàq consommation kenn du ko yàq américains yi su seen blé ñoree ñu xam ne blé bi ëpp na te xam ne buñ ko bàyyee ci marché bi mu daaneel prix bi te bu daaneelee prix bi baykat bi du bëgg a bayaat dañuy jënd li nga xam ne nii moom lañ ciy jënd dugal ko ci marché bi li ci des ñu jël ko tuur ko ci géej gi pour bëgg prix bi bañ a daanu kon tey jii li am solo rek mooy nañ fexe ba li ñuy consommé jóge ci réew mi su doon ci réew mi lañ koy dundee ba pare defar ko ba pare sax tuur ko sax yàqul yàq du yàq parce que day dana liggéeyloo ay doomu aadama dana créer ay industrie te gis nañ ne jigéen ñi seen transformation yi te surtout euh, barki dem maa ngi dem ci Euh, alfayda euh, ansaaru diine jigéen ñi femme de la fayda ñu organise benn foire boo xam ne nii euh, feeg déwén sàmm document dinañ ci dugal loxoom te bu danañ ci dugal loxoom ñun ñëpp te danañ gis mu amaat beneen dimension boo xam ne ni dana départ fii ci port bi ba ba ñuy àgg fañ jëm incha allah. monsieur le président jotul nit ñi ak réew mi gën a bàyyi xel waax bi ndax gis nañ li fi wàcc ay gaal ba ñu gën koo defar ba gaal gu ñëw mën a kose wàcc facilement par rapport ak nit ñi di wàccee. waaw loolu xam nga lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy wax di ko waxaat la président de la république dafa ñëw fii am yéene indi fi ay bateau yéene defaraat ko waaye xam nga léeg-léeg ñun suñ techniciens yi seen xam-xam day bari trop ba pooru daxu nga bee ñu def ñu yaakaar ne pooru daxu nga mën naa remplace pooru Kaolack waaye ku am xam-xam da nga xam ne pooru daxu nga mënul remplace port Kaolack port day topp dëkk dëkk du fekki port ci àdduna bi yëpp port day topp day topp dëkk Kaolack moo yor économie bi te noonu la ko waxee woon ah ñi ngi koy ñaanaan nag loolu mu taxaw ci taxawaay mu taxaw ci ndax njariñu nit ñi la port bi économie la ci transport terrestre ci transport passager transport marchandise et économie maritime ak tamit beauté fierté tourisme taxaw gis ndox ku ne woon kaa may la kër fii ci Kaolack ñu ne la ñu may la ko fële ci digg Kaolack wala ci wetu géej gi ci wetu géej gi ngay tànn kon nag tey bu ma gisee Cheikh Bachir ñas ñëwal boppam nga xam ne nii invité wuñ ko sax ndax ñun mbir mi dañ koo bañ a comme li ñuy wax damaa nekk ci position boo xam ne loo waxati ñu ne dañ koy politicien waaye yàgg nañ ko dañ koy politique yàgg nañ ko def mu ñëwal boppam jiitu ma fi def fi déclaration boo xam ne nii ah waxuma la ne comme li nga wax ne nit ñi dañoo war a jógaat waaye yàlla moom mi ngi ñuy woon ay karaamaam mi ngi ñuy woon karaama yi nga xam ne nii Baye def na ko ak kilifa diine yëpp ci kaw la kon nag euh, taxaw ci ba loolu vraiment sénégalais bi fier ne maa ngi si fierté am fierté maa ngi am sénégalais ndax ki nekk ci île bi wax dëgg yàlla président def na ay programme pont yum wax waye dafa am digënté yo xamné ne kenn mënu ko pont lolo tax ñu naan ah, tubaab bi tuddé pont aérien ak pont maritime pont maritime moy wut ay ay bata yu mag yo xamné ne dana mëna jër nit pont aérien moy jël ay avion yu jël nit ndax so ñaan la pont aérien ak pont maritime transport terrestre transport marchandise ak nit rek la kon tay ñu nekk ci île xamna né naa ne bu ñu effort yu ñu leen yakana 10000 personnes dana fi ñëw wala lu ko upp ndax ña nekk ñëpp oui euh, c'est mon devoir en tant que citoyen sénégalais en tant que euh, natif de Kaolack et en tant que président de la chambre de commerce là où des populations sénégalaises se déplacent même s'ils allaient dans un autre pays on leur accueillera. Et surtout à l'intérieur de Sin qui se déplacent avec leurs propres moyens, avec des difficultés, mais grâce à une sécurité mise en place par Anam et en même temps par eux-mêmes, parce qu'ils savent bien que être ensemble c'est plus sûr. Euh, ils ne viennent pas individuellement, ils viennent ensemble. Et donc ça, c'est un exemple de courage et, de détermination et, de, venir à l'appel de Cheikh l'Islam pour célébrer le Maulud. J'ai dit toujours que les, certains religieux qui ne comprennent pas le Maulud, je ne peux pas comprendre, vous, vous avez un, un fils ou bien votre père, vous allez célébrer le jour de son naissance. Si euh, dans le Coran, le bon Dieu nous dit que euh, moi, le bon Dieu, je prie pour le Mohammed et les anges et demander aux musulmans prier pour eux, c'est parce que le, meilleure prière, c'est de célébrer le Mawlud. Et donc moi, je pense que c'est l'une des piliers de l'islam. S'il n'était pas, si, si nous n'avions pas encadré les cinq piliers de l'islam, on on peut dire que célébrer Maulot, c'est l'une des piliers de l'islam. Parce que le bon Dieu dit que, le bon Dieu ne dit pas que je prie, ne dit pas que je donne des zakat, il dit que moi, bon Dieu, je prie pour Mohamed sallallahu alayhi wa et les gens, et je demande aux musulmans de prier pour Mohamed. Donc, je pense que ça, c'est très important et, et, et de demander à l'ensemble des autorités qu'ils essayent d'attirer l'attention, attirer leur attention sur ce phénomène qui est en train de se faire, plus de 2500 personnes, essayons toujours de leur encadrer et de prévoir, parce qu'ils ils assurent leur propre sécurité, à part la balisage que l'ANAM a mis, mais devraient avoir une sécurité réelle, sécurité de, sauvetage réel, parce que quand il y a le Magal, quand il y a les Gamou, les policiers et tout sont hein, sur les routes, donc la mer doit être mieux encadrée avec, avec des hélicoptères et tout, cela. Et en, même temps, refaire le port pour que le port soit un, espace d'accueil et un espace de fierté que chaque étranger, s'il vient voir que euh, ces viennent, C'est peut amener même du tourisme étranger. Moi, je sais que ça, uniquement, c'est un événement. En en le vulgarisant, vous allez voir des personnes venant de loin de létat unis pour venir assister à l'arrivée des pèlerins, Inch'Allah, et c'est possible. Quel est en place Les dispositifs sanitaires, comme vous le voyez, nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires. Et pour cela, je remercie bien le personnel de la Chambre de commerce qui, euh, à leur tête, président, euh, secrétaire général euh, euh et qui a travaillé avec nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos tous ensemble ils ont travaillé ensemble pour leur accueillir et pour leur soutenir et pour leur donner euh, le petit déjeuner parce que imaginez ces personnes qui se réveillent à 2 heures du matin euh, de ne pas dormir vous savez bien que si vous ne dormez pas vos, vos, vos organismes travaillent c'est différent de dormir et le matin vous arrivez avec, euh, euh, avec, euh, avec une fatigue et un peu de faim. Donc pour, pour s'en ah, L'impact économique L'impact économique, on le voit. Donc moi je pense que n'importe où, même aux États-Unis, même en Italie, si vous voyez, quand les guides religieux se déplacent et ils voient que il y a un monde qui leur attend de l'extérieur, ils le prennent en charge pour assurer leur sécurité et assurer l'économie. On me dit une fois, Cheikh Mourtada Mbake, arrivé aux États-Unis, oubliant sa passeport ici. Mais quand l'immigration a regardé le monde qui l'attendait de l'extérieur, ils ont dit cette personne-là ne, ne, doit pas être refoulée. Il rentre. Et il a rentré sans passeport. Et donc je pense que c'est ça aussi que Cheikh l'Islam euh, bah, a fait partout dans le monde. Au moment que nous, nous, nous, savons, nous, nous, au moment que nos parents ne voyaient même pas une voiture, lui, il a pris l'avion, faire le tour du monde, rencontrer les chefs d'État, d'État, les chefs d'État, difficile à voir actuellement, mais à cet instant, pourquoi Grâce à son, euh, engagement et son audacement et ce que le bon Dieu l'a donné et le discours qu'il peut leur donner. Parce que si vous n'arrivez pas à donner une bonne discours, une bonne euh, impression à n'importe quelle personne, il ne se rappellera de vous et il ne t'accueillera pas et il ne te donnera pas attention. Aujourd'hui, moi je suis parti jusqu'à Chine, j'ai vu qu'ils ont donné une attention à Kaolak, mais maintenant c'est à nous de, faire Kaolak, d'amener Kaolak là où il était avant. Kaolak, il était un, un, paradis économique que tout le monde courait venir. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une ville Salom mais euh, demandez, chacun il dit que nous les les partout les donc moi je pense que Kaolack une ville internationale ville au cœur du Sénégal nous devons plaider l'ensemble des politiciens et marabouts et les journalistes doivent plaider pour que Kaolo revienne comme ce qu'il était. Et ce sera, un intérêt pour le Sénégal. président dañ ko faraatu li ñuy wax nii du waxu politicien kii ñun xam nañu waa juram ni meroon fii ci Kaolack ci def lu baax ak di dimbalanteeg nit ñi nit ku baax mooy jur nit ku baax wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant wax ji lim ci wax amul dellu si laal na Kaolack économiquement laal na ko religieusement laal na ko socialement laaj na ko même sécurité ci sécurité laal na Kaolack man dégg naa ko lu tey mu ne mi ngi wax muy interpellé président Macky te ku ko ormal la daf koy jàppale ne ko Kaolack gii nañ fexé Kaolack danaka danaka nim ko waxé rek Kaolack ci digg Sénégal la ré mbolém réew juromi réew ngi soti ci Kaolack guiné Conakry Bissau Gambie Mauritanie ak Mali yépp sofa fa man nga jaar Kaolack gi nañ bayé suñu xel ci Kaolack tourisme religieux des na tuduna côté zahir bi côté batin bi kenn duko wax fi wax deug yalla ñii nga gis ñu ñëw nii tey maa ngi gis benn xale léegi boo xam ne óor na ma ne a amagul juróom benn weer yaay ma ngi ko amee mënta mënta jàpp mënuñ ko mënta yéeg sax pour jéggi ndox mi dañ ko may loxo sama sama dama xaw a jooy ma ne xoolal lii waaw da xool kii yaay ma ngi ko indi ci ne ko lii laa ci lii ci laa ne bëgg Kaolack te pourtant ma nga dëkk ci beneen région waaye ma ba bëgg Kaolack damaa bëgg lii yàlla def Kaolack moo tax Serigne jëf yàlla yàlla dimbale teraanga ji ngay def yàlla gis na ko yonent bi gis na ko sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ibrahima Niass mi tax nga di ko def gis na ko te jëf ci yàlla inna allaha laa yudiiu ajra man ahsana amalan yow xam nga loolu doomi daara nga fii ma xaw di wax yow kenn laa laa mokkal alquran yàlla du sànq jëf ju baax ni muy sànq dee safaan ba du sànq ju baax ji te dina la fay ci àddina fay la àllëg ci àllaaxira gannaaw dund bu gudd yàlla na ko yàlla defal oh, ñoo ñëwoon nañ ci Cheikh dañu fi naa jël rek ñëw ci dem na ci île yi 1963 la bàyyi dem ci île yi ngir jàng laaya ya Sénégal la bàyyi dëkk li ko yàlla jox war na fu nekk ëtt bu nekk mu taxaw fa ne lii la yàlla bëgg waxul man maay doomi kan de mosu koo wax xam nga moom wax na sax ne ida qulta abdallahi sayida xalqihi fa qul fiihi maa chita laa tax itra soo demee ba ne yonent bi jaamu yàlla la waxal ci moom lo neex tagal tagu ko tagu la neex lu dul yàlla rek yonent yàlla Muhammad doon na ko lu dul yàlla yàlla jox na ko ba desee man maay yàlla képp ku bëgg ngëneel ut ko ci moom képp ku bëgg teranga ut ko ci moom képp ku bëgg loo xam ne soo ko defee yàlla fay la ci àddina fay la ëllëg ci alaxira jonkonal ci keppaar keppaaru yonentu yàlla Muhammad yàlla nag defal ñu ci senegal ay nit ñoo xam ne ñoo tax ba léegi tubaab yi soppeeku ay nit ñu bon mënuñ ko nag gis nga ni xeex bi bëree ak ni mu jubloo Sénégal waaye Sénégal yàlla defoon na fi ay nit ñu baax ñoo xam ne ay kilifa ay diine yoo xam ne yar nañ seen bop ci diiné yar ci seen i ak seen doom ak seen i ak seen soxna ba lu xam-xam bari bari bari ak lu alal bari bari bari mëno leena soppi kon serigne jerejeuf ñi ngi delluwaat di sante di gërem ñi ngi lay ñaanal yalla yalla yalla defal la ndam li nga bëgg ci kaw wax ni te degg na nga wax ko ci lu jotaay bu melni yalla yal na ko yàlla def te yalla na ko fekkee yalla na yàlla say maqama ya rabbi yalla yalla yalla dimbalé dimbalé ñi and ak yow ñepp ci liggéey bu baax bi jerejeuf jerejeuf جودا فهو أصل الأصول والأنجال بين لم يصل نوره بعين إلهي